li ci am solo mooy toutes les régions sont représentées toutes les délégations région de Thiès ñu recevoir te ñu ngi rafetlu teewaayu union régionale du Thiès du teewaa di euh, rafetlu aussi euh, euh, teewaayu woon yi la te Tivaouane banqaas union régionale Thiès bu ça ak bu Andu Bessoul di gërëm waa waa parce que mobiliser nañu boobu ba léegi ak le camarades Sidi Lamine Ndoye amul lu ñu deful ak tous les camarades de Tivaouane waa Thiès aussi union régionale Thiès

lakk bi daal di am ndeysaan suñu doom yooyu daal i génn àdduna yàlla yàlla yërëm et puis ñu dolli njaar aussi ñi nga xam ne ñoo leen meññi woon parce que du loolu la ñu ci ñoom ñi doon faj aussi du loolu la lañ ci ñoom ah li ci am solo aussi wax nañ ko bu doon dañ leen piqûre ñu génn àdduna wala ñu jox leen garab ñu naan ko génn àdduna bu boobaa dinañ ñu erreur médicale la dinañ ko seete feneen wante muy li ay appareil yu indi safara tàkk ak yooyu ñu yenu ay nit yóbbu leen kaso loolu defe naa moo tax aussi ñu te nee nañu ñun ay pyromane maanaam ñu ay incendiaire jàng ñu fay lakk wax dëgg yàlla extincteur yëpp sax xamuñ sax koy defaree donc loolu mu nekk problème bu nga xamee ni xel ni dafa interpellé ministère la santé ci hôpitaux yi ñu xam ne yu bees yi ñu nekk ñu nekk aux normes yeneen ñu leen jiitu aussi ne ñu nekk o normes te audit bi ñu def si installation yi nañ ko continuer

feebar boobu nag moo naroon dal Dante bi parce que am na ay briques commencé woon daanu te am na maintenancier bu nga xam ni matul sax weer wala weeram lu topp lay teg su daanoon ci kawam kon Dante du ñu wax ay xaalis bu koy defaree wala yooyu dañ naan li xew fële xew na fële bloc moo daanu ci kaw personnel bi ñu ne encore que na ñaari yoon lakk di fa am benn yoon bi si réanimation bi toog nañu ba Dante yenn saa yi ngay soxla ndox ci biir bâtiment doo ko am parce que kër bu am téeméeri at ak

delluwaat ci ben hôpital aux normes avec l'intégrité des services et l'intégrité des services cest nee nañ sax danañ ci yokk parce que chirurgie cardiaque amu foon fan la nekkoon nañ ko yok ak spécialité pour un greffe ak pour que même au plan international même au plan africain nous devons def ay évacuation si biti ay français mais il y dana une facture am évacuation président vos camarades du collectivités territorial lan ngeen ci wax. waaw foofu laa jëm nii. Ah, parce que li ci am solo mooy dama ni Thiès ci wàllu boppam la doon situé rek. te pare ci Thiès aussi parce que Mbour Polymètre contrat bu nga xamee ni ñaar ñoo ko set def naa ni kenn ku ci gisul boppam dafa ko war a dénoncer parce que loolu mooy principe contrat day am principe dénonciation wala bu révision waaye duñ ko réviser duñ ko dénoncer te kenn ki rek moo ci gis boppam keneen gisu boppam loolu dafa war a tàkk ci ministère santé daf ci war a jóg loolu mu nekk benn mbir bu nga xam ne kenn concerne la région de Thiès maintenant li am solo aussi Thiès wax nga ko Babacar Ndao les collectivités territoriales ñu ngi fi euh, Sidia mi ngi ci procession ci marche bi euh, Moussa Sissoko moo ko fi teewal wante mënuñu comprendre loi bi moo ne lépp ñuy jox fonctionnaire état dañ ko jox fonctionnaire u collectivité locale donc article benn donc bu dee loolu état wax na ko ñu bind ko ci protocole bi mu leer nañ amul dara lu xam ni xel ni war na mën a tere ñooñu fayeeku waaye ñun tamit liñ naan bokk ci coow li xam ni waral coow li moo gën ñun dem nañu ba direction du budget nga xam ne ñoom ñooy suivre euh, accords yi directeur général du budget ah. Moustapha Ba ñu ngi koy gërëm bu baax a baax nee na ñun ñi suñu wàllu bopp bu dee collectivité locale yi amuñu problème pour fay travailler

engagé nañ ko directeur de jox ko bor je aussi ministère de la santé ministère des collectivités eh, ministère des finances nous sommes dans des ajustements monsieur ah. mais si monsieur y a rien il y a tout y a plusieurs <laughs> y a quelque chose <laughs> non c'est pas quelque chose plusieurs choses donc parce que discrimination

li ngeen bëgg ci omnant exemple de disque cent mille mënu ma leen ko jox mais naa leen yokkal vingt cinq mille ah. mais logement naa leen joxal cinquante mille ah, ensuite tokat tegaat yeneen vingt cinq mille en deux mille vingt quatre ensuite maintenant deux mille vingt trois deux mille vingt quatre ñu mot ko ah, cent mille francs te loolu kenn mënu si fi am te ko jox ñëpp mais bu ñu ko waxee ñu signé ko ba pare lanay wëlbati ku naan protocole bi dañoo wax cadre ak secteur ak yu mel noonu indi si ay ay kalmañangan ay labaj yoo xam ni ñu négocier dara on a déjà fini de négocier texte bi nag ñoom bu ñu ko mën a revisiter ah. ñu def une autre lecture mais ñun suñu lecture mooy octroi l'indemnité de logement à tous les agents loolu mooy ministère de la santé li ci des nag mooy